daleen ak jàmm ci li ci yéenekaay yi xoddeeku balaa ngaa lakkale moom la Sénégal di def jamono ji yëral xët bu njëkk bu l'Observateur Sénégal mi ngi renforcer sécurité wu frontière am digganteem ak Mali ngir xeex terroriste yi journal bi ne ay takk der yu bari la ñu yóbbu ca Ndar ak Tambacounda loole eh, ginnaaw bi ay fan rek dese ngir ñu amal wote njiitu réew ma foofee ca Mali matuwaay yooyu nag Sénégal mi ngi ko jël ci ndimbalu France ak États-Unis lu doy waar moo am ca fonction publique Walf Fadjri ne lu ëpp ñaari junni agent duñu ñu jotati seen i salaire te it yoon dina leen topp ki xam leen li di mel di Mansour Sy jëwriñ bi ñu dénk wàllu fonction publique bu ñu sukkandikoo ci rapport audit biométrie yi ndax agent yooyee dañ daan fayeeku te duñu def dara yeneen i agent itam yu bokk ci contentieux boobee dinañu soppi ni leen daan fayee maanaam au lieu que ñuy virer seen i ci ay banque dañ ko yóbbu billetage ñuy mën di leen gis ak itam di leen xàmmee ci Sud Quotidien Mansour si yokk ci ne ñi daan fayeeku te duñu def dara dinañ delloo xaalis boobe boobee leneen lu gën a doy waar mooy li xew ca police ci biir le quotidien nataalu Abdoulaye Niang njiitalu police sénégalaise ak général Pathé Seck ne ci fàng moom njiitalu police bi ab rapportu Cheikhna Cheikh Sadbou mi ko wuutu ci bopp OCRTIS moo koy tuumaal ne dafa bokk ci trafic drogue te li ci gën a doy waar moo di jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi di général Pathé Seck xamoon na ko bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bii le quotidien yemu ca ndax nee na code de mi ñu jëlee ci bopp police lu yàggul dara moom it mi ngi doon jot wàllam ci xaalis ci trafic drogue bile ma bàyyi fii trafic drogue bi wax ci mbiru góor jigéen bi di Babacar Ndiaye moom nag weddina li Bara Gaye waxoon maanaam ne ci nguur makki Sall lañ ko mayoon passeport diplomatique moom baabakar Ndiaye ne passeport am boobee yàgg na ci moom ndax am na ci moom lu ëpp juróom-ñaari at te moom sax nag xamul kenn ci nguuru Macky sàll ndax gëj na lool Sénégal ci tàggat yaram la ñu jeexalee waa sport ne Fass delloo nañu Aziz Ndiaye avance am ci combat bi waroon a dox diggante Gris Bordeaux ak Tyson li tax Gris Bordeaux di jot juróom-ñetti fukki millions ci jamono joojee na di jot lu ëpp téeméeri millions Papa Sow ne ci laas neexul ba neexul waaye Balla Gaye 2 du moroomu yeneen mbër yi ndax ci gis-gisam Lac de Guiers 2 ak Tine ak Bombardier duñu dara